yaasal iraada sëriñ bamba nee na yaasal ifaada xalitu saada libitinayi niqtidaay moo waajal waaja zidi niqtidaa zinqtida bila annayi muhammadu rasulullah safitifayi bila jafayi tayib ay tayib xelayi yaasal wujudi sëriñ bamba waajal waaja kulli bi juudi wajal ujuudi fawxala daay muhammadu rasulullahi xabli widaadaay xuduli murada yaa man faada bila kiraay ablil buróoraay xinnil xaroor abdan surura li kulli raay waskur xilaab mi sëriñ bamba neen wamal kalaami bila malami walantiraay sar lisaani muhammadu rasulullaay naawir janaan safi amaani waasit baraaya zëxzata day raay yon calla muhammad bari na mënu ko wax ah li ma defal bari na trop bu mënu ma ko wax xéewal gu ne defal na ma ko bi jaar la kon ma jëblu nit ma jëblu nag mu jaare ko ci sëtam bii Cheikh Amadou def ma géwélam nag ci loolu ma ma ñëw fii nag tardu ma doon seet si sama waa ji ban bés nga mës a jàq sës seen tubaab woo ko bés boo soo ko wooyee rek amul bés waaw sëñ foo ko wooyee muy la